la fay lii te bi rek la yéen bi ñëwagul damay faral di wax ne bopp buy am jàpp jàmm nopp buy dégg ndigal ci ay sax sëriñ maam moor mii kum digal jàmm boo déggee la mu la digal danga am jàmm tey da ko am boo àllëgee waaye boo ko digalul nag man yërëm naa la waaye yàlla na la ci yàlla génnee ndax lim lay wax moom taxul soxla ci yow dara it taxut dalaa bëgg a dimbale tey ak ëllëg koo xam ne mën na laa bañ a gis ba ba àddunay tukki te du tee lu mu bëgg mën koo am bu la nee bàyyi lii defal lii xam nga ne sa jëmma taxawaay du jëmmam koowoo digal ko wala nga gis loo xam ne lii ci yoon wi la nga wax ci ku nara am jàmm te nara am ndimbal la nga wax da koy def su ko deful lu mu yàgg-yàgg doole ca lam yàggoon dana ci teg bëtam te àdduna bépp dem nañ ba ne ay la yiween waaye ay du yiween pexe amut loolu nag bu amee ñu jël am njaal di ko jaale sunu jur wu baax wii fi bàyyi koo waaye di ko jiite nag ci yow muy wayjuru sëriñ Moussa Dieng wii ci mbooleem diaspora bi di ko wax ci turu sëñ Cheikhouna mbakke mii ndax Mbacké la nga ca def neex na ñëpp seen ab xolit daal sedd na ca seen ab xelit dal na ca ndax waa njeen ne gépp ànd nañ di la sant waaye loolu la murit yépp àndee nag di la sant ñi bëgg lu baax laa wax waaye daa am ñooñ ba fi samaam di ne santuñu ko ña fi bawoon samaam santuñu leen nag bul yaakaar ne danañ la sant mukk mbàkke ndax loolu la yàlla dogal ndax ku doon fay samaam bor bu la séenee xam ne da ko fay waaw kuy fayu Cheikh Cheikh Mat Bamba Xaadimul Suba bor boo séenee sëriñ maam mooram sëriñ Murtala mii xam nga ne danga nga ndax bu ne woon dama ñëw Touba Touba du la tax a génn tubaa kon nag Mbàkke loolu bu amee nu ànd ak yow nga def lii nga def taxawu ko taxawaay bii mu ñëw lii daal ko nga foote am ndaje Italie gépp war fee daje lii xew nga ne moom mi ko woote woon du ma ko woote gannaawam nañ fomm ndaje mi ba boo lëggee ñu wax ma ko ma dagg biyee ñëw Mbàkke foofu la nit mën a yem waaye kuy ànd da ànd ak ki xam fi mu jëm ba noppi xam fi mu la jëmee te bëgg nga yegg foofa waaye looloo la dal Mbàkke yàlla yàgg ci barkab Seexul Xadiim waaye bu loolu mbooleem ñii nga àndal ci tournée bi ñuy ànd ak yow ci liggéey bii dañoo def xalaat bu rafet génn xel mu rafet wax wax ju rafet bëgg rafetal tey damay wax ne téeméer yi ma wax la benn wan laa ko gën ñoom ñëpp ñu maase ci ndigalal sëriñ naa Mbàkke mi ci ndigalal sëriñ naa Mbàkke ñu wax ne nango sekk mii ci seen biir ñoom ñi ñëpp toog ñoom baaraak xaadima kenn génn ci dañ maa woo ca nii ba wax ma ko ne ma dañ koo amee la cant di ko sant ci jëf ji nga xam ne ji moom la def ndax nango sekk mii di honorable député tey bërki démb bu takkuloon ndomb ak tànk waaye daa àndoon ak yow nekk ci liggéey bi bi mu takkee ndomb ak tànk taxu koo dem Sénégal toog fa boo ñëwee day àndaat ak yow ci liggéey bi te mën a faj soxla ba noppi di doxi soxla sëñ bi ñi ko mën bariwul nango mbooleem ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yow ci tournée bi te ànd ak yow ci liggéey bi nee nañ ñi ngi jëkkati cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di la ko sant di la ko gërëm ci liggéey bi ngay liggéey ci gannaaw sëriñ Mamor Mbakke mii nit boo ko bëggee lu ko waay defal day mel ni yow la ko defal Mbàkke ñi la bëgg ñëpp bokkuñu la seen bopp lañu bëgg ndax ku bëgg lu baax am lu baax xam lu baax tege ci yoon wu baax di def lu baax te di ko defal ñëpp ku bëgg lu baax bëgg ko képp koo xam ne kii wàcce na la fi la tax mu wàcce la fi du ko wax ay bokkam. waaye nag nee na ñu ngi fàttaliku Serigne Omar Silla jawrin la woon ca Brescia ñu àndoon ak moom liggéeyam Serigne Touba bi yàlla dikk ak coobareem ci boppam mu tawat bi nga ñëwee bi ñu la ko waxee da ngaa dagg sa yitte yëpp dem fa seeti ko. ba nga xamante ne bii suñu borom dikk naa coobareem ca dogal ba mu wàcc ab liggéey la nga ci jëf lépp ñëpp yëg nañ ko ndax manees naa def lu baax te di su ko wax moom yombul waaye bëggoo kenn wax ko waaye nag lu nit def ci àdduna si nit ñi dañ ko yëg maanaam def naa nangam fi mu ne doomu aadama ci boppam lu sa olof liy faral di bari ci mbiram mooy fi mu ne bu ma génnoon fii xool goos xool droite dama naan kenn gisuma waaye déedéet damaa juum dama naan gisuma kenn ndax am na ko ne ca kaw fenêtre ba ubbi ko jàkkaarloog man te mënu koo gis te moom mag may gis te man gisuma ko kon su ma nee gisuma kenn gisuma rek def naa erreur waaye di def lu baax te ne kenn yëgu ko wala kon def leneen te naan kenn yëgu ko déedéet da nga naan yëg ne yëg nañ ko waaye bañ koy yëg kenn yëgaloo la ko waaye la nga ci jëf lépp taxawaay ba rafet na kon Mbàkke ñu ngi ñaan nga yàgg fi loolu te xam naa ne kàddu yu gudd na waaye bëgg lu baax ak bëgg ñu baax ak bëgg nit ñi jariñu ci sa jëmm jii doo nga tax ma di ko wax ndax man kenn xamuma ci may waaxooy dem ci kenn di ko faj loo sama soxla man man nii laay def nii ñëpp yi def di faj sama aajo ndax suñ tubaay jox ñëpp lépp te moom ma ko jox li mu ko joxe ñëpp waaye nag da nga maa yóbbu ci rasulullaay maak sama jarbaat bee di paate nag daa mat di leeral ndax nit bu la degalee lu baax te munoo koo fay foo toll da nga koy wax mbakke loolu yàlla na ko yàlla yàggal la ma la waxoon léegi laay waxaat rek mbakke ku la yéene jàmm yàlla na ko am na mu ko bëggee ku la yéene ku la ko yéene yàlla na ko am ko bëggee ku la ko yéene wut nag na ñaanal boppam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. jërëjëf Baye Mouride kon xam naa mbokki taalibe ñu eggale liggéey bi rek jox kàddu gi sunu consul général bi nga xamante ni mi ngi ci sunu biir représenté fi état bu Sénégal di nuyu Serigne Nango sekk député diaspora wax dëgg yàlla. ñu ngi koy suivre te gis nañ liggéeyam rafet na sëriñ Touba moom ku ànd ak moom kanam rek nga jëm kon baax na ñu jox kàddu gi consul général son excellence na ginnaaw ba mu musloo ci seytaane ubbee ay waxam bismillahi rahmaani rahim nee mi ngi ñaan ndigal kilifaam gi di wëy juram ci yëkkati kàddu sëriñ bi nee na mi ngi jaarale ci sa jëmm ju tedd bi ab nuyoom ci turu réewum senegal nga joxal ko ko mbooleem njaboot gi fi nekk muy dawaayir yi nga xam ne ñoo bokk taxawu bis bi mi ngi leen di nuyu ñoom ñépp kenn ku nekk mi ngi la jox waayam nee na di nuyu sa bokk yu baax yi ak njabootug lislaam gi nga xam ne doo tudd mukk këru diine ndax ñépp ñoo yem ci yow nee na tey day wax du ko yomb ndax boo amee gan gu tedd gu mel na yow muy jeexal ab liggéeyam di dellu senegaal nee na wax dana ko diis nee mi ngi lay andil nuyoo ak ziyaare mboolem équipe consulaire bi mu àndal yépp la ko dale ci moom bëkk ñi mujj a embauché ñépp ñu ngi lay ziyaare te di la sant di la ñaanal di la àndi nuyoo le ministre conseiller di taalibi ci kër gi di Mouhamadou Lamine Cissé ak mboolem ñu sëqal liggéey bi nee na di la àndil nuyoo kilifaam sa mbokk sëriñ Babacar si Mansour mi nga xam ne moo ne ci boppam njabootu maam Seydi Alaaji Maalik ak sëriñ Habib ne ni soo ba léegi fa la nekk moo tax mu yéex a ñëw nee na mi ngi lay andil ak cant goo xam ne sëriñ Habib daf koo tibbi ci xolam ndax sa njaboot gi dañoo def taxawaay bu rafet barki dem bi ci xadratul juma muy sa rakki bopp sa siyaw rekk di Cheikh Abdoul Ahad ak soxna sumu Cheikh Amadou Moutada keroog danoo ànd ak ñoom dem xadratul jumaa di taxawaay bu am solo boo xam ne réuni ci sëriñ Habib lool nee na mi ngi ci sant ci gërëm nee na loolu nag mi ngi ci sant njabootu na Ahmadul Xadim ndax doxin wi Cheikh Mouhamadul Moutala jàngale woon te dénkaane woon ko muy doxi doxub lislaam njaboot gi di njaxobub lislaam nee na njabootu Serigne Touba ràññeeku nañ ci lool te rafet nañ ko nee na loolu mi ngi la ci sant di la ci ñaan nee na mi ngi jeexale ay kàddoom di la jaale ci turu mboolem sénégalais yi nekk fii yépp ci su na sunu wayjur wii nga xam ne moo dëdd bërki dem muy soxna xujja di wayjuru Serigne Mara jenn te manees nañ la koo jaale di rafet lu baax taxawaay xawaay ba nga ca taxaw ndax Milan gépp nga ko defal Italie gépp nga ko defal te dara umpulenti nee na kon Mbàkke mi ngi ñaan di delloo dénkaanewaat boppam di dénkaanewaat njaboot gi rawatina ci jafe-jafe yi ndax ki nga xam ne moom la ñu fi boomoon bërki démb la koor bi soog a dem nee na Mbàkke nga ñaan loolu gëj fi te ñaan yàlla aar askanu Sénégal ndax fan yii ñu jàll mel na ne lu fi xaw a bari na te loolu xamuñu ko fi woon kon nee na nga ñaan ci barke su maam Cheikhul Khadim loolu bañ fi amati mukk nee na kon Mbàkke li muy tëjee ay kàddoom mooy mi ngi ñaan aka a sant mboolem ñi nga àndaloon ci liggéey bii nga xam ne danga wax ni du tourisme du dara waaye liggéey bi yàlla la nee na mi ngi leen di masawu coon di leen sant di leen gërëm di ñaan nga ñaanal askan wi di ñaan tam daje bi yàlla bu mu doon sun mujj gi daje di ñaan Mbàkke nga ñaanal képp ku fi andi aajo jum di doon yàlla na ko yàlla faj barakat Cheikh na Ahmadou Bamba Khadimu Mustafa nee na tam mi ngi lay ñaanal tam yàlla may la wér ba mission bu noble bii ngay dox suñu borom dëppale kàttan ak wér ba nga àggale ko fa mu la soob barakat cheikhul xadim di sàkku na nga ñaanal ko ñaanal jullit yépp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw sëñ am nee na Ousmane Seck waa kër Sidina Limaamul Mahdi aji boo daa ilaa seen taxawaay rafet na nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm seen alal ñëw na seen jëmm ñëw na seen doole ñëw na. ah waaw kon ñu ne màggalu Cheikh Abdoul Ahad le 7 juillet le samedi bi ñu jëm kër sëñ euh, Touba gi ci Brescia. kon baax na. bokki jullit yi. bokki taalibe yi bokki lislaam noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di ca jiital sunu sang bu tedd bii di l'ambassadeur de l'islam comme il me plaît à le dire et à le répéter des émigrés l'infatigable ambassadeur de la paix Cheikh Mamour Ibn Cheikh Mouhamadoul Moutada mag yan yàlla gudd sa fan di nuyu njaboot gu tedd gii mu àndal di rakki boppam Cheikh Abdoulaye Lahat moom Cheikh Mouhamadul Moutada sëriñ maam sëriñ moom Cheikh Mouhamadul Moutada ak njabootu képp ku sant Mbàkke ak ku fi ne ci këru diine sëriñ Moutada Amar moom sëñ Mor Faaruma ñépp xam ko ci keppaar Cheikh Mouhamadul Moutada sëriñ Amsatu Saaw sëriñ Cheikhouna Mbàkke Rimini sëriñ Aliou Bousso ak mboolem borom xam-xam yi nga xam ne sëriñ bi ànd na ak ñoom ci liggéey bi te fu nu dem ñu jiitu ci saal yi di jàppale nit ñi di leen soññ ci liggéey bu am solo bii ñu leen di sant di leen gërëm yàlla na leen bi faj noo ngi jox kàddu gi jëmm ji nga xam ne dafa taamu liggéeyal maamam ci tool bi ko gënal muy xam-xam noo jox kàddu gi jëmm ji nga xam ne ba na noppee gi Cheikh Mouhamadoul Moutada al mujahidul akbar en 2004 la wajur mu tëdd Cheikh Saalihu Mbàkke yeesal ndigal ci moom mu wéyal liggéey bii waaye Mbàkke la ko dale ci Sëriñ Saalihu borom nga ak njàppandal ak ndookaak fu murit ne ba ci Cheikh Mountakha mi nga xam ne doon na Serigne Touba te ñëpp yéene ko ko ndigal yooyu bàlla si li ñu foor foor jóge jóge fi nekkal seriñ Touba defoo ko pouvoir defoo ko ak nguur da nga koo def responsabilité xam ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati maa ngi jox kàddu jëm ji nga xam ne en 2005 l'année 2006 bëgguma kenn jéggaane di xam-xam ci min réew nu nuy changer sunuy doom di leen def ci ñoom culture te duñu def ci ñoom lislaam taxawal université Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha yëkkati alal ju bari fay ko am exclusivité UCAP bu université Cheikh Ahmadou Bamba Khadim sa yaa ko liggéeyal sa maam Mbàkke yemoo ca da nga ko def ay centre d'excellence mu jàngale mboolem les disciplines yi nga xam ne moo ànd ak jamono te dañ buñ ko amuloon di ko jëggaani tasaadi ko ci dëkk bi waaye tuddi ko mag ñu tedd ya te xam ne Sëñ Tuubaa def na waj alu def benn maskana taallumi وموضع عن الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن تسويسم لي nga def Mbàkke foo def université ba Daaru Alimul Xabiir fa sa maam gi Sëriñ Daam Abdourahmane defaroon góor yàlla yi barki Demba Njaay vous avez écrit en lettres d'or une page de l'histoire académique du Sénégal loo def inauguré ci teewaayu Sëriñ Muntaxa mi Sëriñ Tuubaa yàlla na yàgg mu ne bu ñu ma tegoon ci pousse pousse sax dinaa ñëw la première faculté en son genre dans la sous-région la faculté des sciences religieuses des civilisations et des humanités yaa sigir Cheikhul Khadim Mbacké bindu tudd Serigne Touba à tout jamais ci l'ordre des universités islamiques du monde muy ñetti téeméer ak ñaar fukk nga ne tudd Serigne Touba dana fa dem bi ilaa ji mi saman muy isis ko yaa siga cheikhuna ahmadou bamba xaadimul moustapha bare si guru siñ mbàkke maaram sëriñ ibra faati ak cheikh isa borom jaawastu naasi wa maa fi aydi naasi ila rabbi naasi falama wasultu ila rabbi naas ahta anna falaku tolu naas bare si guru siñ mbàkke maaram xaadimu moustapha bu demwuloon kenn dem la tun koy nettali ma nga dee ci pënd ba ke deqale da doon bañ ba dem en 1886 ci tiwaawoon ila si uma tal xam-xam Samori Touré ñëpp dem nañ tubaab bi ni ko da nga maa mujjee boo ma njëkkoon doo daan kenn biraasu man bari siñ biraasu man yu bari suñ mu tàq maa defa teraanga joo ma ko wax dinaa ko wax di yóbbu na ma fu ne fu ne baal ma di mbàkke dinaa ko wax yóbbu na ma fu ne waaye dafa am yéene te yóbbu ma siyaar gi sallallahu alayhi wa sallam kasa maam jëni wa huwa wa xulxan zaara wa misu xatulan yura war mi baal ma rek sëñ bi nee na bu ma ko wax kenn salaamaaleykum wa rahmatullahi rasuluna muhammadu salla alayhi samadu maa salaamin yuhmadu وصفا بالمفضل رسولنا محمد صلى عليه سماد مع سلام يحمد وصف بالمفدين الله كان لي بما يبغض lan shabbi ma xadan waali xutan bi ma xaada wa xayra raxaadi hadiyaatu laakil muxiin saxali xayri yàlla in wal yawma bi لكم يوكين من شاءكم وفي غادي مدري لاك البصر بجاك سيد البشر وليايم نهنا شر لم أنحما لم يفيدني علماني له عالم مما يشاء من علوم وزباخيت لي بالكلوم منصرفا بسفادي ناجيت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها واليارم أحمد خير سفادي الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملائ المكملين عن روحنا وجسدي الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملاء المكملين عن روحنا وجسدي بركي برمتبه jërëjëf Serigne Touba. ana santal bii la jërëjëf Serigne Touba dafa. kon ñu ne honorable député Mame Diarra Fam. Serigne Touba. yaram bi dafa xamal li maa ngi leen a xamal ñu ne maa ngi leen siyaar sëñ Moussa nag ñaan bi ñu ñaanal mooy gërëm wax nañu dimanche bii di ñëw incha allah bu dañ koy def ci yaakaar ni baax na ci daara ji ñu ngi koy yëgal ñëpp. 3 heures. 3 heures. bismillah bismillah. baara jàppale ma si. bismillaahi rahmaani rahiim mbokki julli asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa ñu ngi leen di nuyu bu baax. di ñaan rek bala ñuy tàmbali ñu ñaanal soxna ku di waajuru sëñ Moussa Dieng kenn ku ci nekk loo mën ci ay ixlaas rek jàng ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon boo buggee ci ay barab ñett sax boo ko jàngee ñu jéggal nit ñi kon nag xëy na foofu loolu moo tax lu mu gën a bari rek ak lu gën a néew rek lu néew sax kon kenn ku ne na jàngal li nga mën ci ñaan ñaanal ko ko ak ñam fa fekk wax nga ko léegi ak sëñ sëñ Omar ak kilifa yi nga xam ne yëpp ñoo dem ci ginnaaw ndax ginnaaw fii la nekkoon ci yéen moom waa jëla waajuram tax mu dem fekke ji loola kon loolu war nañ koo fàttaliku ñaanal ko moom itam te yàlla bàyyi ko fi kon ñaan lu waaye man ci ixlaas rek amin amin yaa rabbi eh, ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen sant di leen jottali nuyoo sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom la seqal njaboot gi moom itam mi ngi leen di jottali seen nuyoo di sant yàlla bu baax ci fekkiwaat bés bi muy ñaare suñu defee liggéey bi ak yéen ba muy jeex wala ba ñu ñuy taxaw di xoolaat sunu ginnaaw fii lañ koy tëje di ñaan yàlla ñu fekkewaat ko déwén te ay xéewal yépp yokk jàmm ji yéen yokk yàlla defal leen ko fi jàmm defal leen ko jàmm defal leen ko def ko ci àdduna bi fii niñ ko waxee loolu la mooy bu ñu noppee fii la mujje tëj ko mbooloo mépp teew fi dëkk yi nga xam ne yépp lim ngeen ko ci daayira yi kon xëy na dana jafe ñu baamu fi ñu jaar yépp waaye xëy na danañ seet ku ko wax te doonte sax ñoomu loolu xaaruñu ko waaye ngir ñu wax ne bañ jógee ba léegi rek fépp fu jaar rek fu ñu jaar rek ci liggéey bi rek lañ fa daan fekk dañoo fekk lu ko ëpp te loolu dama ciy wax loo xam ne mooy li am mooy sant ci yàlla bu baax ndax dama wóor ne du man <clears throat> waaye nag li ma ci sant yàlla mooy dama wóor na tamit ñàkku leen fayda bu ma ko raxoon yéen a njëkk a xoolaat yëf yi ndax léeg-léeg nit tàmbali dara rax ko dugal ci yëfam waaye dañ mujj naax saay loolu yàlla nu ci yàlla musal ndax dañ cee amul sax dara luñ ci waaye nag léeg-léeg jël dara teg ci kanamam ngir yëfam moo tax ma mu def ko ci ngir dugal ko ci ngir loolu yóbbaale ko waaye ñun loolu dañ ko def ci yëfi Sëñ Tuubaa kooku kon nag ñu ngi sant ñëpp fi ñu jaar xam ngeen ba ñuy tàmbali dañoo njëkki woon Marseille loolu li tax ñu tudd ko ci te bokk fii mooy dañ fa doon ubbi rek bari bi lislaam yi di bari bi Sëñ Tuubaa yi boobu ba léegi itam fu ñu dem rek fekk fa lool kon ñi ngi nuyu bu baax ñi nga xam ne yépp jël nañ fi ay kàddu tàmbale ko ci sëñ Murit Caam ak sëñ Mapenn ak sëñ am mee nga xam ne yéen na ko wax di sonn lool di nuyu bu baax ma dem la consul soxna Roqee Ba Touré moom mi nga xam ne moo fa teewal gouvernement Sénégal di ko ñaan mu jot li ñu suñuy nuyoo président Macky Sall ak gouvernement ak ministre de affaires étrangères di la ñaan nga jottali ñu itam nuyoo bis mbooleem ñi nga xam ne yéen a bokk nekk ci consulat bi te yow itam nga nekkoon ci liggéey bi fépp fu ñuy dem rek soo amul lu taxaw nga bàyyi lépp nekk ci liggéey bi te xam ne liggéey rek moo ñu tax a nga li ci sant bu baax nga jottali ko sa ay kilifa di la ñaanal yàlla. yooyu itam yàlla sàmm la te sàmm tamit defal leen jàmm ci liggéey bi ngeen di liggéey ndax du lu di nuyu bu baax ni ngeen ko waxee xëy na ñu ngi koy soog a tudd mooy honorable député Nango Seck ak soxna Maam Jaar ndax ñoom itam dañu fee nekk la institution fokk ñu tudd leen ci loolu ñu ngi koy nuyu na nga ko waxee rek ni ngeen ko waxee ni ma sëñ Mouride di wax ni sànq waa ñi ñu àndaloon ñoo leen doon sant ma di la ko ma di ko wax démb rek ne ko man nangoo bi mu nekkee député ci laa xamee ne da doon def politique. mësuma ko wax tàllul sax ay loxoom sax ne ma ñaan la ma dama bëgg gañe wala dama dem mësu ko def te bi ma ay nit waxee ne léeg-léeg day sànni ay xeer ci seen politique ni ñu koy defee léeg-léeg ba ma ko ne loolu nag da nga koy bàyyi ndax ginnaaw dañ lay gis ci noonu soo ko defee day mel na loolu dañ koo yëg wala dañ jot suñu yoon da caa nekk booba la ko ba te ñi ma ko wax it mooy ña daan wax ne ñoo koy def kon mbir mi liggéey la ak pas-pas rek kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu it ñu nu àndaloon ci liggéey bi tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk fii sëñ Moustapha ñoom ak ñëpp ñoo xam ne noo bokk mbàkke gi sëñ Cheikhouna Rimini bàyyi lépp ànd ak ñun di di sonn. ñëpp ànd ci damay wax ne li tax ma di leen tudd ci mbooloo ci wax du mbokk gi de du mbàkke gi moo tax doo dégg ma tudd sama rakk yi ci dégg ma tudd ci kenn la tax ma di ko def mbir mi lañ lañ nekk fii ci yéen sëñ Cheikhu naa ma la ci Noara ak boolem ñoo nga xam ne ñoom sëñ Mouhamad nag dafa nekk ñëpp ndax buñ nekkee fii ànd ak yéen ci liggéey bi loolu rek laay fàttali waxtu wu nekk xam nañu bu baax li ñu li ñu bëgg ndax damay wax ni mbir sëñ Touba mbir yàlla la sëñ Touba dafa buuroon bàyyi fekk ay mbokkam ak ñépp di boroomi xam-xam di boroomi lislaam di ay waliyu mu soxla mu bëgg lu bare mu ñaaj am ba mu amee tamit ba ay bokkam yëg ne am na loo xam ne ñoom xëy na eggaguñ fa rëyluwuñu néewuñu ko sunu mbokk nga néewuñu ko sunu lenn nga dañoo mel na ko fàtte seen bopp àndaat ak moom waaye kenn ku nekk ci ñoom am nga loo xam ne boo xoolee sa ginnaaw mën naa am doo ko gis te kon kon sa jëf la te loolu mooy nit yàlla yi foofu la ñuy rawante jafe na lool nga gis sam nawle ci yooyu jamono wax ji sax jafe na ci nga fàtte sa bopp ngir ànd ak moom te ko xam yàlla rek ko mën moo tax damay wax bu baax ne ni may yéeme ay bokkam ak ñoom maam Thierno sëñ ma sàmba ñoom su ñoo ñu mu bokkul maam ñu yéeme lañu ci wàllu jàngat bu ñu leen jàngatee rek ne noonu la waaye dañoo xam ne dañoo xam ci dañ kon loolu mooy wane ne xamoon nañ yàlla bu baax ko xam yàlla yaay xam kenn ku ne poids ba nga ci am boo gisee nag koo xam ne gis na am na ci poids boo xam ne yaakaar eggagoo fa yow te bëgg nga ca doo ko doo too rëy ñoom nag dañ ko def defin wu metti ndax dañoo fa bàyyi lañ amoon lépp dem wuti jëli toppi lu sëñ Touba àndoon ak moom kooku beneen mbir la kon nag ñoom ñii di samay bokk suñu nekkee fii ci yéen di ànd ak yéen ci liggéey bi léegi dañoo bëgg am seen yëfi bopp te looloo gën a ndax yëf yi kat lii ngeen di def nii ku ci teeyul defe na kenn ngeen koy defal ëllëg mën naa am problème yàlla na ci yàlla musal ndax nit koo xam ne waxoon naa ko ci sëñ Sidi Moxtar am at at ñu ngeen di jébbali seen daay ma ne ko ñii ngay gis lu nekk ngi ci seen biir ay wàllu yoo ngi ci borom yi xam-xam ñoom ñëpp ku nekk sukk sa tànk doo ci xàmme kenn te lu nekk nga ci seen biir te dara warul ko dul sëñ Tuubaa rek loolu nag léeg-léeg xëy na ñi ñu koy defal te jar ko ñoom xam nañ ko waaye léeg-léeg nga defal ko koo xam ne mëtu koo defal du ko xam waaye ñi ñuy defal lii te xëy na ñu mat koo defal mooy kilifa yi ngeen koy defal ñooñu ñooñu mat nañ ko defal parce que xam nañ ko waaye nag léeg-léeg nga defal ko koo xam ne te du ko xam te yow du tee nga defal ko ko nga xam ne bu boo doon bu la neexoon sax nga ne jaru ko waaye yow loolu lépp du la cee fekk da nga koy def rek ngir fa nga jëm loolu bët di nekk ci beneen niveau ci wàllu pas-pas pas-pas boo gisee ñuy wax imaan islaam ñuy wax aqida al aqida baat bi aqd la maanaam fas maanaam da gëm ba noppi téye ko bu baax ba kenn du ko mën a fottar ñi wala nga teqar ñi ko ndax gëm niveau la boo xam ne foofu la yëf yi nekk nit ñu baax ñi ñun ñëpp gëm nañu yàlla mais gëm yi du du day wuute am na gëm yàlla boo xam ne nit ki danaan ah mën naa maa def de lu dul noonu bu ma napp yàlla dën ma jégal kooku gëm nga yàlla xam nga ne yàlla am na waaye keneen rus naa yàlla di ma gis parce que fu nekk maa nga fa kooku it beneen niveau la waaye nag lu mu ci man doon moo tax sëñ Tuubaa li mu doon def lépp ak fi mu àgg parce que gëm-gëmam moo eggoon foofu maa ngi nuyu bu baax it kilifa diine yi fi nekk. soo nga ziyaareel ma sañ Bay sëñ sëñ Bay Mansour nit ku baax la suñu mag la suñu xarit la ak suñu doom Habib dañoo dafa xat ak ñu ñëw ak ni programme bi demee waaye boobu dañoo defoon sax danañ ko fekk fii wante kon ñu dem ziyaare ji ko. da ngay gis koo xam ne ci waa këram la fu sori mu di la nettali loo xam ne man fàtte naa ko sax nga xam ne dañ la loolu dañ ciy jublu di ra di la di la di la soññ moom itam ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla may ko abib suñu doom ñu ngi koy nuyu bu baax euh, su fekkente ne nag kon euh, loolu mooy ñu baax ñi kon noonu la doon noonu la sëñ tubaab li mu am ci ngëm-ngëm fekkoon na ko fi gëm-gëm yi ñàkk niveau boobu nag moo tax nga xam ne kenn ku ci ne da nga am ci sa ay classe la moo ci eggoon ba nga xam ne dara dara nekkatul woon ci xolam ak xelam lu dul yàlla foofu nag léeg-léeg dafay jafe lool. loolu moo tax soo ko mosaan baxoo ak bëggam yàlla soo ko mosaan wax ne ko da ngaa bëgg dara sax loolu moom amoon na lu mu araamal ci lu yàlla daganal te loolu dañ koy bañ ci yoon. mais ca xaqiiqa duñ ko bañ ndax day dafa jàpp ne lépp loo xam ne jàpp na ne lu mu bëgg la loolu kon am na place ci xolom te lu dul yàlla wërta am place ci xolam loolu moo tax am na yu mu xam ne yàlla dañ koo araamal dañ koo daganal ba noppi mën mu araamal ko ci boppam bu boobaa ci xaqiiqa ba mu araam na ci moom waaye niveau boobu mooy jafe lu bari ci li mu doon def ñu di ko nettali ci ay miracle yégu ko sax day dem ba egg ci xamatul xàmmeetul leneen lu dul yàlla rek bu boobaa yàlla moo ñëw taxaw palaas ba moo tax lu bari ñu di ñu di ko bàyyiloo xel nit ki ci suut su ndaw yi ci kanam nañ leen di fexee bañ di leen ñuy am ñu di leen wax ay ngëm-ngëmam ba ñu gëm moom lijjanti nañ ko parce que da ko daan ñaan ndax la may wax ne sëñ Tuubaa ku dégg arab la wante ku xam ni ñuy waxe la ndax lépp lu mës a bëgg ci nit ci xam ku xam pédagogie la ndax ku xam jàngale xam ne fa am ay règle bu fekkente ne ay cours la wala da ngay def tableau wala yaa xam lu mu mën di doon am na foo koy teg nii nga koy defi fii ngay tàmbali fii ngay yem léegi nag ci biir ñi ngay jàngal bokkuñu ay xel bokkuñu ay xalaat ndax moo tax ñuy def examen boo defee concours examen kenn ku ne dana la répondre répondre boo xam ne mën naa am sax mu am ñëpp dëgg mais da ci gis koo xam ne na koy wuyoo na mu lay répondre dana la xam ne kii beneen affaire la kon sëñ bi loolu moo tax gëm-gëmam boobu mu amoon nga xam ne tax na ba dara xëjul ci ci loolu moo tax lu bare bare bare ci lim doon lim doon am mu mu di ko doxee yàlla may ko loolu ba si jax amul woon dara lu mu tegoon ci yàlla loolu moo tax nag mu teeloon na euh, bi mu ñëwee ber wala wala sof ci li fekkoon moom alxuraan ak sunna amu ci dara lu mu ca sos waaye dafa dafa dafa ñaaj ne moom dafa yàkkam te dafa bëgg am lu bari bu bu bu dawoon rek fekk ñu baax ñi fi nekk ci kanamam mu daal di leen di fiir dem kon ñooñu mën naa am ñu xool ko beneen bët waaye da leen bàyyi ñu jiitu mu jékki-jékki dugg ci mbooy gi ba mu ñu teg tànkam xamul sax fan la pour ñaaj nag dem wëri loolu fit ak gëm moo ko mën a tax def loolu moo tax ñoom soxariwuñ ko woon dara lu ne ñu ngi def sunu ci université faculté boo xam ne science maanaam lu jëm ci tourisme la tourisme boo ko waxee rek dañu defe na mooy noos waaye ñun dañ ko bëgg a jële anam gëstu ko bu baax gëstu ci ba xam ko ak déggin wi ba ci jàngin yi sax ba ci bindam sax xasida yi nga xam ne li ñuy wax wàllu balaaxa def cee am lu lu rëy loo xam ne bariwul amul sax maa koy wax kii ne fan yi ñu ngi doon dédicaceel benn xale boo xam ne dafa bind ci balaaxu Cheikh Amadou Bamba nga xam ne balaaxa ñi koy bind ci wàllu waxinu arab bariwul ku ci bind te jëloo ay exemple ci ay téere yu bari waaye moom bindam yi boo ci boo ko jàngee lépp ci balaaxa mi ngi ci biir mooy wax boo xam ne day am lu muy tënk ci biir moo tax ma doon wax ne Eh, eh, eh, li ñuy wax yaa maalikal mulk yaa man jalla an xawni irham jami al wara yaa hadiya al quran léeg-léeg benn ndaw ko naat daan ne sëñ Tuubaa nee yàlla yërëm na ñëpp fekk mujj ga lam ca wax mooy bu lay pour mu yërëm la daf lay daf lay gindi daf lay jubal ndax yàlla moo ne wa rahmati wasi'at kulla shay'in sama yërmande ñëpp xaj nañ ci mm. mais bala laa yërëm nag daf lay jaaral jaarale ci yoon wi tax mu yërëm la waaye fekk la ca baar ba fekk la ca nangam ja fekk la ca nangam ya waxewul noonu da lay yërëm pour mu def dugal la ci yoon woo xam ne dana la yërëm kon wax yi ni ni muy waxe ci bind du lu yomb moo tax ma doon wax lii li ñuy wax bil Mustafa li banal xudoo sama darasatan bi yazul atar wax naa ko sunu mbokk yet ne leen bi bana rek doo dara madrasa tan du école bu ñuy fondement jël ciment teg ci mu jëm ko mais système la wax ah. parce que bi mu ñëwee fekk Mamadou Anta Sali di jàngale formé ko ba ko fa bi mu demee ba gis na eh, dafa war a renouer dafa war a yeesal wala mu révolté wu ci ci enseignement ak éducation ci la waxee ne kon ña fa nekkoon ñëw leen ñi nga xam ne da ngeen maa dangeen ngeen fee ñëwoon pour loolu kum neex toogal waaye léeg ñu firee ko ne def nañ ku ku mënta nekk ak man mooy sañ Tuubaa du waxee noonu dafa wax ne école am bi nga xam ne moom la bëgg ak système bi mu am ku ci bëgg a ànd am nga ci sañ-sañ mais ku ci bëggut a ànd bàyyi madrasa boobu nag ci la génne mag ñooñu muy maam Cerno ñoom sëñ Mbàkke Buso ñoom sëñ Daam Abdurahmaan ñoom borom xam-xam nga xam ne Mamoor Jaara ñoom loolu mooy école u sëñ Tuubaa boobu lu moo tax mu def ko ndakira lu amoon ba noppi la du loo xam ne dañ koy fondement waxin yooyu mooy jafe léeg-léeg ci déggin am na ñu doon wax sax ñun bi ñu tabax suñu université bi sax am na ñu doon dégg ñu naan université bi sëñ Touba waxoon nga xam ne yooyu yëpp sëñ Touba li muy lu mu am la ba noppi te système am la façon boobu la ñuy waxee déggin ay waxam léeg-léeg mu jafe lool waaye nag nañ ko gëm rek waaw buñ ci exagéré nag waaw luñ xalaat na noonu la ko waxee rek nu génnee ko noonu moom nañ ci tey kon gëm-gëmam boobu mu indi nga xam ne looloo tax muy ci wàllu diplomatie muy wax eh, fukk lu wér din yooridil murida li xadratullahi walan yaxida sawa un intama ilal jilani aw intama li ahmad tijani aw li sewahuma min al aqtaabi id kulluhum qadan ala sawaabi masaayixi Seydina Jilaani wa Saadali wa Kata Tijaani ku ci nekk mu wan la ne jàpp na ànd naa yow topp la pour bañ ay frustration wala mu bañ rek ay démagogie wala mu bañ ay ay ay ay la ci bañ moo tax mu bëgg ne di wax ne yëf ay parti politiciens yi sax defe naa ñoom nangook soxna am affaire léeg-léeg ñu xuloo waaye léeg juboo ñoom sax dañuy waxtaan bu ñu xeexee ba mu neex leen ñu ànd kon ñi nga xam ne yàlla leen tax a ñoom loolu da leen ci fekk sax dañuy won dañuy won nit yi yoon wi kenn ku nag ka nga xam ne buñ dañ koy dañ dañ koy fekk mu tëdd ñu wat ko bokkut ak ki ñuy teete mais bokkut ak ku ñuy xëcc muy daw loolu mooy seen seen différence mais nekkul loo xam ne dañoo am kenn ku ne sa yëfi bopp ndax mënuñu ko ñemewuñ ko alxuraan lañ topp ak sunna loolu balaa boobu itam ñu massaw leen ndax yëg nañ ne fa ngeen daan may lépp baax na rek coono bi ngeen di am di wut fu sori di jël bu bu leen ci dañ bu metti na waaye li ngeen di am ak li mu leen di jural moo gën ay lu ne ci àdduna wallaay moo ko gën léeg-léeg ñun ñi ci doonu dara sax dem ba ñeewante waaye ñoo ne xaw ma lu ci suñu yoon ndax xam nañ xam ngeen li ngeen def taxuñu ñun di mënu leen a lijjante bañ jàpp na yéen a tax ñu toog fii yéen ngeen toog kooku moom mënul am naa ko guddi wax naa ko bëccëg léeg-léeg nag <laughs> sëñ am am ñooñu ak sëñ Mori Thiam ñii bëgg la fonk la wax la ba nga mujj boobu boo teeyul sax da ngay ñu defee ne léegi nga ne fër dem fekk dañ laaw dañ lay dañ lay dugal parce que boo dee nit da koy jàppe ak soññu parce que bëgg nañ la bëgguñu laa duggal dangay ngay jàpp ni ñii nag dañ laa bëgg a nga laxasaayi waat waaye bu ñu la nee yaa nga ca kaw nga gën a yokkamti ko loolu nit du ko def koo gis muy yokkamti ko rek xamal ne kii du sori parce que yokkamti ko mën na su ca dëkk moo tax damay wax toujours ne wallaahi buñ noppee fii ni ma ko daan waxee rek su ma amee biskalet mën naa ko man ku mënoon welo may xale laa xaw ma nag léegi mag nag la xaw ma nekk nag waaye bu ñu ma ko joxee mën na maa génn fii dem sama yoon parce que xool li ngeen di xool sëñ Tuubaa la tamit noonu laa ko gisee de da ngeen na war maa ngir sëñ Tuubaa di moo tax damay wax ne ñu di la xool ci lu baax nag yàlla nañ la ca gis wala yàlla buñ gis leneen ci sa ci biir même buñ gisul lu baax la it buñ gis leneen waaye ñu di la xool ci lu baax nga defe ne yaay ci ne nga defe ne nit ñii bu fekkee nit képp ngay nëbb sax moo ko wax nga ko léegi bu fekkee nit képp la ñor ci nëbb mënoo ko wax nga ko wax yi xóot sax léegi gisuma kenn waaye kenn gisuma waaye yow yaa gisul kenn wax ju am solo la moo tax buñ la dee xool ci lu baax fexeel ba bu ñu la gis ci lu bon la gis ci lu bon rek bu ñu la gisul ci lu baax it buñ te gisuñu la ci lu bon it ba tey ñoom mën nañoo rafet njort nga continuer waaye waxtu ne nga nëbb ci sa biir nekk wala nga tax carax wala sugar sëgari wala nga nangam nekk ci loolu neex lu ne nga def ko dañ dala xool ci lu baax yàlla na ci yàlla musal te la ma doon wax démb rek ku defee na yaa nga ci sa biir wala yaa nga ci ki ñu di la warmaal nga xam ne taalibe yi tey loo mën a def boo génnoon nekk ci fu la neex wala nga def la la neex boo ñëw ñu sukkal la raamal la nga defee ne xamuñu lara ma ne romanaat boobu nag ba ñuy def nag bu ko bul ko xam waaw dañuy romanaat ci biir mais kii xanaa du moom xanaa du moom kii bërki démb mu mu ngi woon fa mu ngi woon fale mu ngi woon fa nangam dëkk sàngam la mu fa doon def bërki démb hôtel bu lu ne ñu wax xam xam lépp nag parce que dafa am loo xam ne yàllaa koy xamle léegi sax ci nit ñi dafa mel ne ngelaw li la te nit ki nga xam ne di gor di jullit am man xool ci yow yàlla añale woo ko bu dul boo ko boo ko amul dara kersa tamit nga dimbale ko moom ndax mu bañ la nekk ci moom moo ndax am na ñoo xam ne tey am na bu ñu ko gisee lenn li am na loo xam ne tey bu ñu ko gisee ci nit ci koo xam ne xooluñu ci loolu dañu daan ne ndekki lii nekk daan mën nañoo sax faa jaare sax dootuñu bëgg dara ndax man mii maa ngi koy fàttaliku ba may gone sëñ Abdoulaye may jàng tollu ci jàng sëñ Abdoulaye yónni sëñ Mourtala ne mën nañ ko jëlee ci bitim réew ma ñëw ñu di ma ajali Makka ne naa ajali Mamour Anta Sali boobu amu ñaar fukki at sax léegi bi may bi ma nekkee aji nekk ci njàng xam nga jàng gone rek ci di jàng noonu bi may aj màkk di di tawaaf benn waaye man jamono moom mu xool mbagg mi dama lànk daal di bàyyi daal di ne daal di fay ñu wat ñu yanu ma di ma wëral kaaba gi xam nga gëm-gëm bu ma ngi bëgg a wàññeeku ndax dama ne waa lu tax yow fii kaaba gi la ñi ngi wër yàlla digli ko nga nekk feek nit muy wër amul lu dul yow nga jege ko rek sab der xëy na mu defee na danga koy taq loolu am na ñoo xam ne buñ gisee ci nit ku ñu wëtt gis ci loola dañ naan ndekki lii aayul wala ñu daal dina ndekki ni kii nangam nag mën nañ faa jaare sax lañu gëmoon seen pas-pas dañ te lu nit def nag nit ñi xam nañ ko rawatina nag yoon wi nañ bàyyi xel loolu te responsabilité ni ko ma koy waxee léegi ak sëñ responsabilité la mais du nguur du pouvoir du nguur boo ñëwee ñu toog ci sa wet sukk di la warmaal boo leen laajee ñu jox la boo leen laajul ñu jox la mais kooku nga defee dafa dof nga defe ne boo génnee dugg ci sa néeg dafa la neex boo génnee ñu defaat noonu rek nga ne ak ah, xamuñu ci dara parce que xamuñu ci dara yaa waaye am na keneen ko dafa am ambassadeur bu ambassade bu moom daan dem bu may ñëw damay def ci ambassade yi léeg-léeg pour toog ak ñoom laaj leen ba xam lan moo xew ci Sénégal yi fi nekk ba amuñu jafe-jafe boo xam ne mu ñëwee jottali nañ ko ndax ñoom tam dañ leen di jotal lépp ma ambassadeur bi woo ay staffam ak ñi nga xam ne ñëpp ay collaborateur ñu toog waxtaan ba ci biir mu ne ma nag ñu baal ak ma ne ko lu xew mu ne ma ñetti at ñu ngi la koy surveiller wallaay lancé ma ne ko mais loolu du dara man am na ku ma gën a ku gën a garaaw koo xam ne sama xalaat sax da koy xam kooku mu sëkk kon yàlla kon yéen dañ cee war a jariñu ci yéen ndax ah, man de loolu laa bëgg yàlla waxuma ko pour lu neex de dëgg la ci man moo tax li nga wax léegi rek léeg-léeg ñu wax loo xam ne sax sëñ mortori ñoom ñi nga xam ne ay seen doom ci njabootug sëñ Tuubaa lañu ak sëñ Cheikh naa ñoom ñi di sunu lépp léeg-léeg ñu ne ñu ah yaa ngi war gileem ko defee nag ah ñu jéem a xool wàcc rek waaye <laughs> wallaay jubluwuñu war gileem day def loo xam ne léeg-léeg nga ne ko farax rek fang rek wax jeexal ndax dana am ñum jariñ même bu amee ñum lor dina am ñum jariñ ñu ngi leen di sant bu baax sëñ Mor ñoom xam ne sëñ Touba yar seeni waajur ñu bëgg yoon ñu bëgg ñu dara lu dul lu baax kon barab yii ngeen xam ne wax ngeen ngi da ngeen amoon fële bu ëllëgee ngeen am fii fu ngeen am lu ngeen am rek fu ngeen am rek xam ngeen leen rek li ngeen bëgg yéen am ngeen ko ba noppi ndax fii yombul dajale ay téeméeri nit te yàlla tax te ña nga xam ne ña nga nekkal bokk leen dara bokk leen wax bokk leen melo ñu xeeboon la ci dara ba noppi wëlbatiku naw la te la leen tax noonu mooy comportement parce que diine comportement la nga fexe ba wane fa diine wax wane wane boo xam ne kenn yëbu fa diine waxuma laa yow kooku boobu mission mission bu jaaxaan loolu kon lay tax nit mën koo def mooy mu xam la ko tax a jóg moo tax ma ne yéen ñi ay missionnaire nga maanaam nun dañuy ñëw rek pour di seedee ka wax xëy na bu amee loo xam ne dafa laaj war gileem ñu war gileem doog ci ko wax ko boo liggéey sunu luñ ko def waaye ndax dama ne nit kuy dox ci yoon bëggut a geesu bëggut a taxaw mais boo nga dem ba ci nga jiitu yow ne mel na yaa nga ci kanam mu niru ne ci kanam nga du kanamu jiitu mais kanamu boo gisee ab pakk nga gaaw dindi ko rek la parce que moom xoolu ko bu ko defee pax yaag pakk yaag ñal ya nag loolu moom day am te loolu mosu fee jóg nag ci diine waaw diine su diine liy jëmmi diine muy lu ñuy wax pas-pas bu ne rek rek bari na ay ñal ndax lu ko dett la ko dafa yomb yàlla te yàlla itam may na nag loo xam ne te da lay bëgg jaaxal ndax nit koo xam ne yaa ko bind moom ko mu léppam amul dara lu am ci boppam mu di la weddi nga naa ko bu ma weddi am naa lu ne nga di ko ca wax te loolu lépp mën na ceeb bi a fekk nga xam ne fi muy waxee ne yakaadu euh, wax euh, waxaalu tax daraman waladan yakaadu samawatu yatafattarna min watan shaqul ard wa taxiru jibalu hadan an daaw li rahmani waladan alquran yàlla daf ne mais nit ñeme na loo xam ne bu koy wax ne yàlla dafa am doom nee na doj yi sax ak su doj yi dañuy waaj a xar asamaan si bëgg a fet tiit ndax defe nañ musib boo ciy jóg du leen jig sax ñoom yàlla bàyyi nit mu di ko wax ba noppi di dem mun naa ko déedéet du noonu am na awma doom ndax su ma su ma neexoon ma wut ko waaw su ko neexoon ma wut ko kon lu mu ciy waxante loolu loolu lépp dafay wone ne rek yàlla daf noo may nit loo xam ne mooy ko kenn mooy ko malaaka mooy ko bàyyi waaw kon nag ñun bu ñu yàlla dimbalee ñu mën a def dara mën a fexe ba li diinee boobu nga xam ne li koy wane mooy jikko ndax fii bu ngeen fi ñëwoon topp mbedd yi di julli rek du ngeen du tax ñu <laughs> duñ leen respecté de mais comportement bi ngeen di doxee te diine looloo ko tax a jóg loolu moo tax ñu di leen bàyyi waaye bu ngeen taxoon mbedd mu ne ngeen taxaw ko julli jàll ca ma ca des dañ naan ñi leen ñu ramassé leen yóbbu tëj kon li nit di def ci diine di ko wone kooku da ko symboliser moo tax islaam di wax islaam ak imaan imaan mooy li nekk ci biir nit ki nga xam ne kooku moom bu dee dëgg ci moom doo ko gis ci lu dul noona islaam nag mooy li ne li nga xam ne bu nekkee ci nit ki mën na ko niiru waaye du ko doon loolu tax yàlla ñuy xàjjale lislaam ak imaan nit mën naa nekk mu'min bu ko nekkee rek muslim lay doon wante mën na nekk muslim te dekk te du nekk mu'min ndax muslim mooy di jullee ko woor ak def li nit ñi di def ci kaw léeg-léeg sax nga muuru wala nga wala nga sëgg lu sëgg lu wala ngay dox di téen lu ne nga di ko def ngeen ñu defe ne yaa nga ci kaw te fekk gëmoo ca dara kon nag yéen ngeen fexe ba mu des kenn ku ci nekk woyofal boppam kenn ku ci nekk defe na moroomam moo ko gën kenn ku ci nekk boo mais loolu beneen mbir la te tubaab yi li ñu xam ci yéen xamu leen ko sax seen bopp lu nit di mën a xam ci nit rek xam nañ ko ci yéen am na loo xam ne yàlla rek ko mën a xam waaye lu nit di xam ndax dañ ko def dañoo dañoo dañoo dañoo dañ cee am am buntu la ndax koo xam ne fekk sëgg ko ci am réewam boo ko leenu melo foo dugg xam na ko looy def xam na ko mais kooku dafa yomb a contrôler ndegam seen morom ne ñoom la ñu mën a contrôler sax askan kon suñ fekkoon ci yenn lu tax lii lépp duñ ko ñemee am na ñoo xam ne ñu nga ko ay milliards fii ci réew mi suñu mbokk ñi nga xam ne am nañu pétrole bu du jeex tey ay jullit liñ fi am ci xaalis réew mi amuñu ko sax banque yi yëpp mas naa ko wax ci benn ndaje bu yàgg bi diggante guerre golfe bi ci Malta man leen may yéen ci ndaje mu amoon dañ ma mujj génne génne wuñ ma sax waaye dañoo war la ma laajat ñu lànk ma jël sama fekk ci digg taabal yëpp ci digg saal bi yëpp ma jël samay bagage daal di jaar ci digg bi di wane ne dama gedd ma itam boobu goneel xam nga rek ñu dima dabaatal te la nga wax wéesuwul seen banque yi arab yi banque li ngeen di wax ne l'islam ngeen doon ba noppi seen banque yi li ëpp seen alal yi mi ngi ci réew ñi leen ñi leen ñi gëmul ba noppi di bëgg a rey nit ñi ko wax hmm. kon su fekkente ne ñoom li ëpp fii ñoo ko moom te mënuñu fi lii yéen yëru leen lu ngeen jariñoo sax far man fi lii mais loolu doy na ndam ci lislaam loolu moo taxoon sëñ Tuubaa di wax kër yi moo tax kër yi du mën a bàyyi xel yéen a koy wax ci xasida mu xam moo xam wala xat karam na li sox dawam fataaxatin akono bi ak bosaali man bi huddal islaami nga xam ne conquête yooyu nga xam ne moom la lislaam daan doxe di dem di ubbi ay di di di toj ay réew ni ko mbokki euh, Cheikh Mbacke Mbuub yi daan ànd ak buur yi di def dem di toj ab dëkk lakk ko euh, ñeen dañ ko daan def ci turu lislaam ñu gëm wala ñu def ko def nañ ko lu bare raxoon nañ ca nag raxoon nañ ko lool loolu moo tax bi ñu amee fi ay barab dem ba amatuñ fi doole lislaam amoon ko ci Europe wax rawatina ci Espagne xam ngeen ko yéen ñëpp na fa lislaam demee woon kon suñ demee ba feebal fa yéen yàlla ñëw ngeen di am seeni barab kër kenn ku nekk ci yéen amul sax kër gam war bëgg ci Sénégal ak soxla ya fay xaar nga ne dama bëgg kër guñ fii nga xam ne fi lay nekk kon nga xam ne kër googu ëllëg a tax ñu di ko def kër yi ngeen fii am bu leen ko caaxaane àdduna la ak àllaaxeer kon bu ñëwee ci Italie ñu ne am na fukki kër ak lu topp. juróom juróom. lu ngeen fi mën a am ci barab rek wut leen ko ndax moo remplacé loolu nga xam ne moo doon barab yi nga xam ne lislaam amoon na ko ci Europe. tañ fooyee ko ba mu dem te loolu rek la dañoo fo rek ba mu dem. dañoo foo ba ngëm nga dem mu des fa symbole ba muy julli gaa jàkka yaa coow la boo demee fu mel ne euh, Granada daf lay jaaxal boo demee ci architecture bi. am na nga xam ne dafa am diggante yoo xam ne sax ay ay chef doo fa nekk ñu naan dañ doon wax ne ji li ak alxuraan di wax jannatin tajri min tahtiha al-anhaar maanaam sunu borom day wax di di di di naatal nit di ko di ko di ko di ko di ko naatalal naan ko àjjana boo fa demee ay ndox ndoxay daw fii nga xam ne loolu waxiin la rek. ñoom ñu di ko def foofu boo demee foofu fu ne ñu ne la gis nga ndox yaa ngi daan dem ci kaw ak suuf nga xam ne kon gëmatuñu woon yàlla defe nañ ne kon la yàlla wax ci alxuraan dañ ko war a mën a am ci àdduna xam nga ñu kon gëmatuñu woon te boo demee ci alxuraan lañ doon référé woo nee nañ kon nag ñun bu ñu amee barab yi bu ñu ko caaxaane lu nit am bu ngeen ko xalaat rek moo tax ñu ngi ndokkeel dëkk yi ci bare yéen itam fii tamit noonu na ngeen ko kii yal na leen yàlla jox nag foog ngeen amal seen bopp. amiin wëri ay saalit ñu di leen wax loolu lépp amul solo waaw yal na leen ko yàlla jox. fu ngeen fu ngeen ko bëggee ak na ngeen ko bëggee. waaye nag na ngeen fédération yi ñuy wax nañ ko gën a fonk ngeen di ci jàpp ndax waxoon naa ko keroog ne daar yi nañ leen di dimbale ndaxte. daara yi ngeen di ngeen nekk fi ci yenn barab ñoom sëñ Fallou daara yi nga xam ne kër yëpp am ay ñu fay jàngale alxuraan dama ne jàngale moom ñooy defal xale yi moo mën a téye ngeen fi def ko mooy ëllëg la dal ñee dana na ñun du ñu dal ndax ki ñu àndal waaye nag xodde ku bala ngaa lakkale rek moo ci gën ko la fi waxee nañu fexe ba jàngal xale yi daara yi ñu di leen di leen toppatoo keroog maa ngi dem ci ab kenn ci waa bëgguma koo tudd mun naa ma barab yi léeg-léeg nit a koy fay nga xam ne ndeysaan ña koy fayal fa mu luye fii ci dëkk ci Italie daf ko daf koy réyal nga xam ne te loolu dara jëru ko waaw yi dañoo waroon am seen budget ñu di leen sompal ci daayira yi waxoon naa ne daayira bu ngeen jël ki ma ko ñemee wax de xaw ma nag ma wax ko kenn waaye sëñ mun de wóor na ma ne su ngeen dajal woon téeméeri million ñëw ne ko ah, sëñ bi de téeméer millions yi ñaar fukki yi fanweer yi dañ ko jox daara yi bu ngeen wutu mën leen jël leen li ci des jët leen ko waaye nag bu dee am keneen moom mën na leen a mer ca wala sax mu bëgg koo def ñu ne ko doo ko fi defit nañ ko yët sëñ bi jaxasa say wax loolu day am da ngay wax lu baax benn waaye seytaane lay doon wala koo xam ne bëgg a yàq daal di ko jaxase boo xam ne kenn du ca mën a teg dara waaw yët nañ ko yët sëñ bi xale bi kenn du ci jël dara fekk daara ja moo taxoon sëñ bi ñuy wax sëñ bi waaw loolu dinañ ko def daayira yi ginnaaw xëy na bu ngeen nee daara ji nañ wutal daara yi mën naa am sax ñu woyofal ko parce que daara bi ñoo ñoom itam dañoo weexu noonu xamul lu xew waaye bu ngeen di def daayira bu nekk daayira maam jaara yaag daayira kër kër kilifa bu nekk kilifa gu ngeen mën a dem ne sa daayira de million la woon jël nañ ci ñaar fukki junni jox ko ko daal di wallaay bu ko naqari bu ko naqari rek booy bu ngeen téyee la ca des bañ ko koo joxati parce que jaru ko waaw kon nag nañ leen dimbale nañ leen dimbale bu baax lu ñu am daayira bu nekk ginnaaw dana jafe daayira yi ngeen di dajale daayira bu ngeen dajalee ngeen jël ca ne lii nañ ko jox daar yi bu ngeen demee yëgal ko ka ngeen koy jox bu ko naqari ndax bu ngeen dee laajal daar yi mën naa am ñu minimiser ko wala ko jox fula waaye bu ngeen dee def loolu mën na ngeen cee am njëriñ ñu noppalu te liñ leen di defal moo mën a tëye de li ngeen def kon nañ ko gën a téye bu baax euh, kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla faj aaju jëpp jamono bi coow li bari na ci ay immigré lu ne ñu ngi ko ciy wax waaye def naa ne taxu leen ni ñuy wax taxu leen ñuy wax nag ba mu tax ngeen def na du tax ngeen ñuy wax bu ngeen bu ngeen taxul fi mu ne itam mën naa dem ba tax ngeen ñoom ngeen di wax parce que dañ ci leneen dañ ci leneen dañ ciy dugg lu ngeen doon mbattandiku rek ngeen leen ko yokk gone yi topp mag ñi mag ñii fi nekk kat ba samp fi lii lu ne ñu gis ko fii te ba tax ñun wet leen ba lii ñu bàyyi ko fi ba ngeen fekk si leen ba lii taxaw ñooñu ñooñu kat ku leen ku leen ku leen di leen warmaal buñ doon ñuy retraité sax da leen di war di fay ay salaire te loolu sax mën naa nekk am ci mag ñoo xam ne di leen dimbale ci yëf yi baax na ci ndax fi lañ nekk taxawal lu ne ñu def ko fi kon buñ demee ba mënatuñu te du ñuy jaay seen doole loola nañ ci nañ ci bàyyi xel loolu kon nañu fexe ba xale yi ngeen góorgóorlu bu leen dugg ci lenn immigration bi ni mu demee ñu di ci soow li ko waral li ci ëpp mooy ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo xeex yi am ci biti xeex yi am ci biti surtout pays arabes yi lu mel ne Syrie nga xam ne foofu moo doon sàmm ci jamono ba civilisation di am diggante diggante ay Syrie Irak jëm foofu civilisation yu bari ak xam-xam yu bari foofu la nekkoon bari na fa ay ñoo xam ne sax du ay jullit comme Palestine comme yooyu ak i Ordon Jordanie foofa ay ay lu nekk nga fa ay chrétien nga fa ay juif nga fa bari nañ ko loolu te ay arab la ñu mm-hmm. loolu tamit nga xam ne léeg-léeg nit am ci njuum bu ñu nee arab rek nga la def ne arab aw làkk la mm-hmm. culture la rek mais du diine da gis ñu am na maa ngi bi ma nekk Vatican maa ngi nekkal na koo xam ne dëgg arab la di ma wax sax ay alxuraan mm-hmm. te kookoo ci gën a tuuti boo demal Israël ci juif yi dañu mokkal alxuraan keroog maa ngi seen seen seen benn débat benn juif ak ak ak jullit kenn ko kuntum xayra ummatin uxrijat ma ne ko kuntum sarra ummatin <laughs> bi wax ko boobu wax bu mu ne ko alxuraan def ñoo wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mu ne ko déedéet kuntum sarra ummatin loo ci man te it loolu it lan léeg mu jub de ndax am na ci moom am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla jullit lañuy ñuy tuddoo ci lu baax waaye nag du def baaxewuñ ko moom kon nag yéen xale yi na ngeen topp ci mag ñi da daayira yi lu ngeen ko gën a boole mbooloo yi ngeen bañ a wattandiku ab tàqalikoo mm-hmm. wattandiku leen tàqalikoo bi ñii dugg ci seen biir di leen carrière ay structure yoo xam ne du dara tey yéen ñi ci ëpp damay wax ne xamuñu sax lu xew dañoo defe na lu baax te ña ca biir ñoo tax ñuy wax mu ñun mësuñoo waxante koo xam ne la ñuy wax lu nekk rek dafa am lu nekk ci suuf waaye mësuñoo wax pour wax de maa ngi koy wax genn kilifa ne ko ñu wax ba egg ci benn mbir mu ne ma ma ne ko ku ma xam ne jàpp nga ne dara dox na sama digganteeg moom du doon sama yëfi bopp benn dafa jubati ci yoon wi ma xam ko mu xam ko mu xam ne xam naa ko loolu de mooy indi problème bi waaye man ak kenn képp sama yëf wallaay ñun aw ma jot boobu sax waaye nag ginnaaw leenu yaakaar nag ku ci bëgg nekk di ko sax saxte mais di ko foyee te yow moom nga gëm ah, wax dëgg yàlla nag sañ nga nag mais lii la loolu la de waaye amul benn nit bu may ëmbal dara aw ma sax boobu xalaat su ko defee rek wallahi al asim la ma ci xam ca biir mooy tax démb ma daan wax xam naa ci at yii sëñ mutulaat génne bu njëkk la ma daan xam maa ko daan lijjanti sama bopp di xam di wante xam naa ci leneen loo xam ne ci diggante bii yàlla xam ne ne bëgguma ko woon xam sax lu leen gis naa ko fi lu leen gis ngeen ko fi di yëf yi tey am na ñoo xam ne dañoo defoon ne man a maa koy woote bu doon man a ba tey tas na lu ne def nañ ko ngir yàq lu ne moo tax ma ne ñun buñ ko rax wallaay buñ ko raxoon ba tey am na ñoo xam ne fañ jaar mën naa tas sax am réew wallaahi la ñu def ngir yi yàqu tas mën naa tas sax am réew waaye mbirum sëñ Tuubaa boo ci nekkee ci dara te raxoo ko kenn bi ca mën dara booy boo nga dem Inde boo nga dem Chine boo nga dem Nigéria wala Mali gars Mali lañ xewal dégg nga ak dégloo bu ko defee léeg-léeg dañuy defe ne sax leneen nga fekk du dara yàlla rek ak sëñ Tuubaa ak ngeen fexe ko bañ a rax nag ñun ñaan kuy ñaan daal nag ñaan yàlla ñu bañ koo rax rax bi nag bu amee rek seen musiba moom ndax gars yi dañuy jëkk yàlla buñ ko tax mooy waaw mooy defe ne dara nga ci loolu moom yàlla na ci yàlla kon ñu ngi gërëm bokk yéen ànd yépp nag di doon def tournée bi ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp rawatina na ñu yor média yi presse bi journaliste yi di jottali ñoom ñëpp ñoom Omar Omar Ndiaye ñoom Mbaye Guèye Sylla ak ñoom Mbaye ñang ñeeg ak xale yi ñu àndal yëpp ak télé bi yeeg ak ñi koy jël ci réseaux sociaux yi ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm di sant yàlla yit bu baax ndaxte tamit wax joo xam ne waajur loo ko yombul da moo tax léeg-léeg rek mooy wax sëñ Mor ñoom di leen gaaw bu ngeen waxee bu ñu waree gileem rek gaaw leen ak ñi doon conférence conférence yi waxtaan yi waxtaanu diine di fàttali nit ñi seen borom loolu lépp ñu leen di gërëm di leen sant kon nag ñu ngi koy taxaw di ñaan yàlla ñu fekkewaat ko amiin yàlla na ñu yàlla may kattan gi ak wér gi ñu fekkewaat ko wax wu ne rek nii ñu koy defe rek la saa buñ fi ñëwee rek fekk fi lu ëpp lañ fi fekkoon loolu nag li ma leen wax rek kuy ñaanal ñaan am kàttan gi nekk ci parce que tamit looy def te yow wóor na ne ne xaraar xaaroo ci sax yàlla mu fay la ca parce que sëq damay wax ne sëqunoog yàlla ak pay ndax moonu bind ñu war a sant nu mën a ci kon bu baaxee naan danaa la fay ci lañ doon ci kooku ak baaxam rek kon nag ñun yàlla nañ ci nekk rek ak ànd ko ak jéen jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki taalibe yi fu waay nekk na tàllal loxoom sëriñ bi ñaanal mbooloo mépp ñëpp ne nañu siyaare benn par benn noo ñaaw ginnaaw mbooloo mi dafa takku ku siyaare bul tàllal loxo sëñ bi nuyoo rek jàll na ñëpp tàllal tey wax amin na ñëpp tàll xaaratut tey wax amin na waaye bëgg na fas ko ñëpp daañu siyaare incha amin amin amin ñu teewlu ñaan gi tey wax amin amiin amiin lu waay bëgg na ko fas amiin mbak yàlla na sëriñ Tuubaa sàmmal boppam yàgg fi nu yàgg sa ginnaaw ak sa waxat amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbi amiin Mbacke rajo Xassida online sëñ Modou Mbaye Thiam liggéey bi rafet na bismillah na ñëpp ku ñëw nag na nga joxe loxo dem amatul ñaan amul taxaw la rajas soo wàcceel soo bi wàcceel soo bi wàcceel soo bi wàcceel soo bi wàcceel soof ziar nañ jëm tugal may ma tugal may ma ziare woon nga ba pare ziare woon nga ba pare toogal def bindul ma rek ngir jëm sëñ Tuubaa yaatal rek waaye oui ma ziare woon nga yaatal rek ngir jëm sëñ Tuubaa siège bi xaw a ñëw lu tuuti may leen ma tuuti may leen ma tuuti baax na baax na baax na baax na ku nuyoo rek nga jóg dem. xoolal. يا مالك jóge Touba Toscana na dem fi nga xam ne mooy Touba Caserta jóge tubaa Caserta amatuma retour de la régie ñu xool amatuma retour déggatuma Cheikh amatuma retour technicien à la régie amatuma retour déggatuma waa maa ngi jégalu kon euh, problème euh, maa ngi jafe-jafe boobu en technique waaye résoudre nañu ko ba nu jógee Caserta mu ëmb Touba campagne yëpp ñu jóge fa dem dëkk boobee nga xam ne c'est la cité cosmopolite dëkk ba nga xam ne c'est la dëkk ba nga xam ne c'est la ville de Césarée muy Rome sëriñ bi def fa ñaari liggéey yu am solo. Ah. allo allo allo ok mun naa dem loolu sëriñ bi yëkkati lu symbolique muy fustu bi zarfi la hasan di xasida goo xam ne en 1915 la ko Cheikhul Khadim taalif déje ko la Vierge Marie la maman de Jésus Isa ibnu Mariam muy loo xam ne islam du ko fàtte dialogue islamo-chrétien dana ko bind te Sénégal di ci exemple un pays à quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans ñu am premier président boo xam ne chrétien la kenn musa dégg chrétien yi ak jullit yi ña ngay jote waaye sukkandikoo ko ci stabilité bi njàngale mag ñi ci lamisonte ak mu daaral sëriñ bi jóge Rome avant mu fay jóge mu président ndaje boo xam ne borom xam-xam yëpp dañu faa daje ñu wane jàmmoo ci diggante diine yi ni ci murit yi taxawee inspiré wu ci njàngum Serigne Touba Oustaz Wadane Serigne bi jóge Rome dem fee nga xam ne. mooy Kalyani l'île de la Sardaigne fédéré wu autour de président Moubarek Lo ñu def liggéey bu am solo dafa benn marche pacifique ngir jàmm sëriñ bi ànd ak autorité diplomatique yëpp ñu bàkk lislaam bàkk jàmm dox ca dox bu rafet ñu jóge Kalyani dem Trieste jóge tries dem télévision jógee nag télévision dem fa xam ne mooy Genève Torino Catania bi sëñ bi jógee Catania ànd ak Baye Mbaye Guèye Sylla ànd ak Malick Diaw ànd ak la régie de la ADI ñu jóge dans l'île de de dem fa nga xam ne mooy Torino dem Novara sëriñ bi soog faa jógee dem fa nga xam ne mooy Genève le poumon de l' économie européenne le grenier du fa nga xam ne sëriñ bi wax na ko léegi alal yi ci àdduna yi yëpp fa lañ ko dëpp mu wan leen le message de paix wan leen ni alal ab yoon la wu ñuy jaar waaye du ab jëmukaay ndax li ñuy bari bari bari su bari gi amul ak jaamu yàlla ak gëm ko doyloo ko ak benn ko du jariñ dara. sëriñ bi jóge Genève démb nu dem fa nga xam ne moom mooy Novara jóge Novara na ñëw fii nga xam ne c'est la capitale économique de l'Italie le poumon du muy Milan sëriñ bi yëkkati fi message bu am solo ci booloo bennoo bokk ndey bokk njàng mi rawatina daara yi di leen soqali waaye yar njaboot gi toqi leen ci li mag ñi jàngale muy lan muy bokk ndey bokk baay ñu fexe ba ëllëg gi si biir bu mag ñi demee ñu mën a assurer relève muy message bu am solo farei ombrevere um assunto nella bellissima lingua di Dante Alighieri saluto all'istante la mia cara sorella Aja Ummi Gey Mamjar chiaffato un bellissimo lavoro nel corso degli anni per la Daira Mamdiara. Non smetteremo mai di ringraziarla. E su questo ringraziamo tutta la federazione dei Daira Mamdiaro che sono costituiti da più di Daira sulla direzione di Sokhna Amy Eccoci alla fine del nostro percorso che ci ha portato in 17 bellissime città italiane in cui abbiamo avuto l'occasione grazie all'aiuto di Serigne Mamor Moutada di incontrare le autorità locali, le autorità amministrative, di conferire attorno a quotienti fondamentali quale la permanenza sul suolo italiano nell'osservanza dell'enorme vigente nel paese di accoglienza. Ciò che Serigno Mortara ci consigliava sempre di fare. Dopodiché Serigno Mammor incontra la comunità senegalese, particolarmente quella Murid, per ricordare i valori fondamentali, i basamenti de la philosophie di Cheikh Ahmadou Bamba cewa in lavoro e la pieghen dobbiamo lavorare come se non dovessimo mai morire ma dobbiamo pregare come se dovessimo morire domani cioè l'input che ha dato Cheikh Muhammadul Murtada creando 15 residenze di Cheikh Ahmadou Bamba sul suolo italiano non una cosa facile tempo se ne va, ma mi preme ricordare il ruolo quanto importante che sta giocando, che sta ricoprendo Serigne Mame nelle sue vesti di ambasciatore dell'Islam, l'educazione, la pace, la solidarietà, l'aiuto reciproco per dare un valore, un significato al nostro soggiorno su questa terra. Adesso le farei, je le ferai brièvement en langue française, comme me l'a demandé mon frère Wadan. Je le saurai. écho bi. Je parviens pas à entendre la régie. J'ai des problèmes de retour. ah non non non non comme je l'ai dit tantôt dans la dans la belle langue des langues Algérie j'essaierai de faire un résumé bref. de boucler avec euh, cette étape de la ville de Milan le Puma. économique de l'Italie, Serigne Mamour a, commen a sa tournée européenne avec l'ouverture, l'inauguration de la résidence Cheikhoul Khadim à Marseille. Comme aime à rappeler l'historien Mbaye Silla, l'histoire de Marseille reliée à Cheikh Ahmadou Bamba à Pinet-Laprade, à Louis Moutet. Marseille à tout jamais à écrire une page de l'histoire de l'islam dans la métropole française Serigne Mamour a inauguré la résidence Cheikh Amadou Bamba à Marseille après quoi il a initié son séjour italien à Brescia la ville où a été proclamée la première journée dédiée à Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul l'étape de Brescia a été très déterminante Serigne Mamour s'est rendu ensuite à Bergamo à Parme à Genova, à Rimini, la deuxième journée de Cheikh Amadou Bamba le 12 juin. À, en Toscane, à Livorno, à Cagliari, la troisième journée de Cheikh Amadou Bamba le juin, qui a été par une marche pour la paix et la cohabitation pacifique. Serigne mort s'est rendu pour la deuxième fois au Vatican sur il a bien il, a, il s'est fermé, il, il a bien élucidé. C'est qui a choisi son heure. Le jour de l'audience, c'est le premier chevalier musulman qui a rencontré le souverain pontife François après qu'il ait rencontré il y a de cela 10 ans, jour pour jour, le 19 juin 2018, le pape Benoît Pour enclencher le dialogue ou la cohabitation pacifique entre religions. Il a sollicité, il a demandé au pape de facilité aux musulmans de vivre leur culte avec l'édification de mosquées ou de centres euh, sur le sol italien dans les résidences acquises légalement. Serigne Mamor s'est rendu à Turin, à Novare aujourd'hui, nous voici à la fin de l'étape de la tournée italienne où Serigne a lancé un message très important. On peut retenir Serigne Mamour l'incitation à la concorde, à la paix, à la solidarité et à l'unité après avoir renforcé les acquis. aider les écoles coraniques et former cette progéniture qui est née ici pour un jour avoir une formation adéquate pour pouvoir relever le défi et arroser ces graines que nos anciens ont semées sur ce territoire italien. Oustaz Wadane maa ngi lay delloo kàddu gi euh, sant bu baax ci liggéey bi a deux ci ngan gi ren may sant au passage le directeur Omar Ndiaye l'équipe technique Cheikh Sadibou Touré Jong ak oustaz Wadane ci liggéey bu rafet bi ngeen def ba ñu tàmbalee le 6 juin ba tey di le premier juillet yàlla na Serigne Touba fay waaye li lépp nag mi ngi dugg ci nifaali wa ibqaahi wa fawzi bila anan bi kawni xadimal Moustapha tatabay jërëjëf Serigne Cheikh Mbacke kon xam naa damay eh, dalal rek sama jigéen. Euh, soxna Oumy Gueye moom itam euh, ku xam euh, taxawaayam rawatina bi nga xamante soxna jaara bi moom it liggéey na ci liggéey boo xam ne liggéey bu am solo ñu koy jaajëfal di ko wax ni àdduna nag moo baaxoo nii liggéey bi léeg-léeg buñ doxee ab diir day am ay coppiku bu ko defee ñu dugalaat ñeneen ñu àggalewaat liggéey bi ndax jamono noonu lay doxee waaye ku ne xam na ni ak ayam taxaw na ci taxawaay boo xamante ni mbooleem Touba Italie gépp maanaam seede nañ ko kon soxna Oumy Gueye moomu moom lañ taxawal tey ci collectif tournée bi fii ci Touba Milano kon soxna Oumy Gueye ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la tey mooy journée bi nga xam ne moom la ñuy clôturer tournée Sëñ Mamour 2018 soxna Oumy ban jàngat nga ñuy defal ci jéego yi tedd yi nga xam ne Sëñ Mamour la set la ko tàmbalee woon Brescia tey ba le premier juillet fii ci Touba Milano. auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi ginnaaw bu ma sante yàlla julli ji sangu-sang yi alayhi salaatu wa maa ngi sant Sëriñ Bamba bu wér di jaraw la kay maam Charaay ma di wax jaaraama maam jaara barke borom gaawaan sëñ Wada laaj bi ma laaj sawar naa ci tontu ndax sëñ Mam Mor dañoo ànd ak moom ànd bu rafet comme ni nga jiital ci wax ji rek macha allah le sept boobu eh, dafa bokkoon ci semaine culturelle bi soxna yi doonu ci ñu ca woon leen waaye àddina di dox di dox ñu topp ci ginnaaw góor ñi di liggéey di liggéey di liggéey. ba egsi ci le sept boobu ñu ne nañ jàppale góor ñi ci huit juin te macha allah ay màggal yu bari yi ndax ñu wàññi ba ñu ko defee ñu jox ko rapport mu sukkandiku ca rapport ba ne bés na tey jàppaleetu leen kenn le sept bi jox naa ko soxna ñu am ci mbégte mu rëy nag mbégte mu yaatu tournée bi retour ab Ibrahima Touré ñu am ci mbégte mu yaatoo yaatu tourneem bi ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàgg a dox yàlla na ko yàgg a def yàlla na ko yàgg a taxaw ndax euh, suñu njariñ rek la suñu baa njariñu njariñu kese moo ci ne tey nag sama taxawaay maa ngi jégalu bu baax ndax euh, tarde bi waaw waaye tey dama amoon kàddu pour soññ soxna yi ci liggéey bi nga xam ne bonne volonté moo ko tax a jóg ñu bëgg ne ci ginnaaw sëñ Mor jàppale ko ci liggéey bii nga xamante ne moom la yem waaw ñu soxna wu liggéey nag bokkoon ci ña doon toog ak a sottante xalaat te féete ci Lombardie bi ndax dégg naa ne Emilia Romagna Marche am na ñu fa doon togg lenn am na ñu doon togg ca Cagliari waaye soxna Oumy Gueye loxoom dafa newoon ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo doon togg ci biir Lombardie bi ba tax na tey ñu joxoon ma kàddu pour ma soññ soxna yi waaw ci kaw loolu nag maa ngi sant bu baax. di sant góor yàlla Cheikh Mouhamadou Moutada ndax lii lépp moom la bu ma ñaanalee xalifatul am yàlla na ko yàlla yàggal suñu kanam di ñaanal Serigne Mamour di di nuyu sëñ Fallou Mbacké di nuyu eh, sëñ Cheikhouna Mbacké di nuyu sama jëwriñ yi ma àndaloon di nas nas boobu macha te ñu doyloo soxna wu liggéey ma di ci teg nag. di sant soxna Astou Mbacké ci turu jigéen ñëpp waaw di sant macha allah ñi xamante ne ñoom laa àndaloon Milan ak Brescia gépp maa ngi leen di sant bu ma santee sëñ Fall tudd Modou Mbow rek sant naa Brescia di sant waa Milan yi léegi lii waral liggéey bi mooy ay tool moom buñ ko dee wax mbir mi amul slogan jàpp naa ne amul slogan ndax bu ñuy wax xel kon ndeysaan suñu xel day dem ci suñu sang bu tedd ba Serigne Saliou xam nga moo dàqoon lëndëm nga gor garab eh, eh, dindi mala yi ba xel kon mel ni mu mel ñun na suñu waxee ne fii ñu ne ci diaspora mooy suñuy tool kon fii dañuy sant Cheikh Mouhamadou Moutada moom bi nga xamante ne moo dàq lëndëm gi indi leer. picc mi di naaw di duy di indi di duy di delloo kon fii ci tool yi luñ fi mën a saxal rek nañ ko sampe Cheikh Mouhamadou Moutala yëf yi nag amutu saar xam nga lu ñuy dafa waa maa ngi tëj maa ngi tëj macha allah li ñuy li ñuy woote rek mooy eh, na ñépp jàpp kuy wax ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasulullah oh, kaay ma xamal la nag kaay ma xamal la nag fi may. taawun booleel muy Serigne kër juuf ak Serigne Modou Thiam ñoom it ñuy taxaw ci soxna yi taxawaay bu rafet kon di ñaan rek fédération bi sunu borom dafa leen tawfiix may leen ay kam yu ndaw ay ndam yu kawe njortu ci barke sëñ Touba kon euh, ñu taxaw ak sunu doyen sëñ Mbaye Guèye Sylla kon sëñ Mbaye Guèye Sylla ñu bëgg rek euh, nga tënkal ñu euh, bi ñu commencé dox bi ba tey bi ñu ko tëjee fii ci Touba Milano. waaw jërëjëf Serigne Wadane Diop. ñu ngi nuyu mbokk yi ànd ak ADI euh, fu ñu man di nekk def naa ni conclusion bi li ci Cheikh Mbacke Mboub wax ci tournée bi euh, doy na sëkk man fi ma bëgg a joyal samay wax jëme ko fa mooy télévision bi di ADI mbokki taalibe yi gis ngeen taxawaay bi nga xamante ni euh, télévision bi ci njiitul sëriñ Omar Ndiaye ak équipe technique bi mu àndal taxoon nañ ko ci tournée 2018 euh, euh, bi euh, may sàkku rek waxoon naa ko Livorno bokki taalibe ni leen ab jumtuwaay ngi nii bopp war ngeen cee jàpp ngir taxawaay bi nga xamante ni ñi ngi koy taxaw ci liggéeyub Serigne Touba bi ndax it nag tournée ren bi ci ni mu tasaaroo taxawaayu télévision bi moo ko waral ba waxoon naa ni ni nga xamante ni Euh, su tukki bi di jub danañu daje wax ni dañuy jël oto muy def dëkk sangam di yëpp ñi ànd ak sëriñ bi dëkk bu nekk am lu mu war lool loolu war nañ cee boole télévision bi di A2I ndax it euh, ci seen fray bopp lañu ñu doxe ren waaye nag ça ne peut continuer du lu mën a continuer il faut bu fekkente ni bëgg nañu tey du fii rek Europe gi nga koy seetaan même Sénégal ña ngi ko fay seetaan loolu ndam la loo xamante ni bii nag dafa jar ñu euh, jàppale leen loolu daal maa ngi ko doon ñaan bokki taalibe yi taalibe Serigne Touba yi nga xamante ni tournée bi euh, dara ump leen ci ndax euh, télévision bi manit ma di leen sant bokk yi àndoon ak man ci Facebook bi surtout ci reportage photo yi ñoom itam di leen xamal ni tournée bi jeex na tey di sant sëriñ waa daan Diop ci taxawaay bi nga xamante ni bi depuis le sept ba léegi mu ngi koy taxaw euh, ci liggéey bi ànd ko ak équipe technique bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen euh, taxawaay Serigne Waagane euh, waa Waadaan ni ma ko doon waxee tukki bi jeex na tàmbali woon nañ ko ci bisimilah arrahman arrahim ca Pontevico eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin fii ci Milan tukki bi nag ren ndama ko waxee woon rek li ci feeñ ci ay signe dafa bari tàmbale ko ci le 2 juin ca Marseille ba fii nu toll tey di le premier juillet euh, ci euh, Milan euh, bis bu fi sëriñ bi dem rek bis booba buñ ko seetee ci taarix am na lu mu dëppool ci yoon wi kon daal bokk yi ma dellu di leen soñ ni leen télévision italien yi dëkk boo dem da ngay dem rek ñu jëlal la lu tuuti wane ko waaye direct moom noo ngi koy doog a am nun nag noo ko mën a garab la gu ñu jëmbat goog Omar Ndiaye ak ñi mu àndal li ñu man mooy jëmbat garab gi waaye suuxat garab gi ba mu dem ba meññ meññet moom bokki taalibe yi taalibe yi Serigne Touba te lu nekk man ngeen ko kon daal foofu lay tàggoo ak yéen ma di leen sant di leen gërëm di ñaan sunu borom mu fekke loolu tournée 2019 euh, sëñ euh, Wadane Diop ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm jërëjëf. jërëjëf mbay euh, Mbaye Guèye Sylla Euh, xanaa di sant bu baax a baax sunu directeur bi nga xam ne moom la ñu àndaloon muy soxna euh, muy Serigne Omar Ndiaye moom tam ci taxawaayam bu rafet ak équipe bi nga xam ne moom la ñu àndaloon muy Serigne Cheikh Touré ak euh, Serigne Mouhamad Jong ci seen taxawaay bu rafet ñu taxaw ak nag soxna Ami sàmb mi nga xam ne moom mooy présidentu fédération daayira maam Soxna Jaara bi nekk tubaa itali ngeen gis taxawaay bu rafet bu daf tey ci Milano mu ànd ak Soxna Astou Thierno ak Soxna Anta Babu ñëw teewal fi waa fédération bi waaye teewal fi waa Touba Brescia euh, kon soxna Ami ginnaaw bi ñu nuyoo la kon ban message rek ngay jox euh, daayira soxna jaara yi rawatina fédération bi nga xamante ni sunu borom dogal na yow yaa nekk ci ba bi ñu jiital la ci. asbilaay mina seytaane rajiim bi bisimilah rahmaani rahiim jërëjëf sëñ Wadane jërëjëf sëñ Bamba euh, sëñ Wadane maison bi ma leen di jox mooy rek ñu gën a laxasaayu waat te góorgóorlu te xam ne liggéeyal sëñ Touba rek a fi nekk soxna Jaara kon nag euh, te dañuy kontaan tey ci tëj-tëj yi ndax sëñ Maam Mor la tubaarikaal la Mbàkke kontaan nañ ci moom kontaan nañ ci turanam bi maa ngi koy wax nag ci turu fédération Soxna Jaara euh, ci turu Soxna May May Jang ak Soxna Awaloo di ko wax ne kontaan nañ ci ngan bi kontaan nañ ci turne bi euh, wax dëgg yàlla amuñu fayam dañu koy ñaanal rek yàlla yàggal ko fi tëwéer tey ñaanal ñu ñu yàgg liggéey soxna jaara di làgg liggéey sox sëñ Touba ndax jigéen ñi kat jàmbaar lañ te it fu mu dem ànd nañ faak moom wax dëgg yàlla Mbàkke fu dem ànd nañ faak moom wante am ci moom cofee la tax ak am ci moom bëggam ak baayam bu baax ba nam ñu ko boole woon mu jox ñu it cër boo xam ne moo ko fi jox jigéen muy set suye bi mu jox jigéen ñi muy lu ñu kontaan torop nag kontaan ci lool di ko ci ñaanal yàlla yàlla nañ ko ko yàgga def te yàgg ko teeru tam yàgg fee ñëw ci barke sëñ Touba di ñaan yàlla itam yàlla nañu yàlla dimbale yéen it kontaan nañ ci yéen euh, sëñ daan ak sëñ Aliou Ndiaye mi nga xam ne ñooy euh, directeur rajo bi kontaan nañ ci yéen torom ndax fépp fu tournée bi dem rek ànd ngeen fa ñoom jigéen ñi soxna jaare yi daal muy fédération bi ñëpp yónni nañ ma ci yéen nee nañ daal yal na seen télé bii doon télé télé télé télé fa ngeen bëgg mu yegg fii yal na fa ko fi yàlla yeggale ndax wax dëgg yàlla am ànd nga ñun ci tournée bi ba mu jeex kon sant nañ yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf waa kay. jërëjëf euh, soxna Ami Samb kàddu yi am na solo kon euh, di sant bu baax a baax rek comme ni leen ko waxee bokk yëpp ñu àndaloon kon nag euh, lii mooy li nga xam ne seen télévision A2I moom la leen andiloon. ci tournée ren bi muy 2018 di ñaan fajaleetu sayx sëñ Maam Mor Mbàkke xafisahullahu wa raahu sunu borom guddal fanam wéral ay cëram ba mu àggale yéen a yëpp waaye nag di jagleel bu baax a baax Serigne Omar Ndiaye ndax ku ne xam na ne ay direct yombul te bañ tàmbalee ba léegi àdduna sëpp seen lañ liggéey bi kon sëñ Omar yàlla na lay yàlla defal tawfiix yokk sutura yi yokk xéewal yi barkeb Cheikhul Khadim mbooleem personnelu aduwe yi ñoom ñëpp tam ngi leen di ñaanal sunu borom defal leen tawfiq ci barke Cheikhul Khadim kon daal di leen jox rendez-vous ci tournée déwén bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu